ngelaw li jóg ñu dal ci kaw kër ga mu màbb ba ne tasar bi yéesu waxee loolu ba noppi mbooloo ma daldi waaru ca njàngaleem ndaxte jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul